gàdd gi nag li muy liggéey bari na parce que am nañ gàdd gi agro am nañ gàdd gi transport am nañ gàdd gi distribution gàdd gi agro moom mooy sunu première bébé moo nekk Touba. moom lañ njëkk am comme usine après ñu tekki fac 1 ak fac 2 fac 1 ak fac 2 ñoom ñooy joxe ginaar yi baax yi ak nag yeeg xar yi bëy lépp seen boucherie charcuterie yàpp bu baax la ñuy jaay ginaar yu baax te lépp ci norme yi nga xam ne moom la service d'hygiène joxe ci la ñu nekk. gàdd moom. yàpp bu rafet la ñuy jaay ay doomu réew bi ñoo koy liggéey depuis mois de mai daaw ba léegi maa ngi fii di góorgóorlu mais alhamdulilah quoi parce que yàpp yàpp bu baax la ñuy jaay yàpp bu rafet en plus ku fi ñam aussi benn suba di nga ñëwaat kenn daloo parce que li ñu jox lu baax lu garanti ñi ci nekk nag ñi def nañ vingt ans en Europe ñi def nañ seize ans man mi di wax ak yow nekk naa seize ans à Londres ci benn boucherie laa nekkoon donc lii ñuy def nii domaine bu ñu xam la. ñi nekk ci tool yi tamit ñoom it ñi am nañ 30 ans en Europe te ñëpp dañoo ñibbisi pour bëgg a suqali Sénégal on travaille plus sur les produits ko lépp pour gën a bëgg a jàppale suñu dëkk pour gën a jàppale tamit ndaw ñi ñun nag dañoo ànd ak waa FONGIP FONGIP nag ñu ngi ñuy jàppale bu baax ndax bu dul woon ñoom tey peut-être fii ñu agsi duñ fi agsi ndax jàppale nañ ci xaalis buñ ñu jox bu takk boo xam ne moo gën a tax ñu ubbi fii ñu nekk. grâce à FONGIP bi jàppale ndaw ñi pour moo gën a avancer et puis liggéey bi gën a am gën a jëm kanam su ko ndaw yu bari xamee dina arranger Sénégal si ñu bëree bari bari sax. jàppale ndaw ñi pour ñu gën a développer au lieu ñuy jaar si gaaleeg wala yeneen di dem uti ji leneen. te par rapport am na ñoo xam ne mën nañ leen investir pour nga toog sa dëkk liggéey ndax accompagnement bi ñuy jàppale di gën a jàppale ndaw ñi pour liggéey bi gën a mën a dem kanam Sénégal ca kanam bëgg nañ tamit nguur gi gën a jàppale sénégalais yi nga xam ni dañoo nekkoon bitim réew ñibbi si Sénégal bëgg a liggéey ndax suqali seen dëkk parce que man yaakaar naa ni li ñuy def Europe lépp bu ñu ko defoon Sénégal fii Sénégal dana gën a soqaliku liggéey bi tamit sans comme genre fonds JIP yi duñ dem parce que ñoom ñoo ñuy accompagner ci ci ci wàll yëpp